safaru bamsatin xujjatun salla wa sallama bila intihaa'i ala nabiyi llahu zulluhaa'i fataha li fatahan hadaani rabbuna fi dikrihi wa xamsihi wa fil binaa rafaatu aqlaami ma almidaadi lillahi warrasuli za amdaadi baaraka lii fi umri llahu alkarim waxaada lii sahaadatan laysat tarim madda ilayya allahu fadlahu alazim wa li fuaadi nazahat durran nazim سقاني الباقي بلا إعواج لغيره قبل لدى الأمواج شرح لي صدري لدى رجوعي لبلدي وسانني عن جوعي jërëjëf sant gii nga sant yaa ngi yaa ngi ñëpp ko bokk. dëgg la yaa ngi mboolem taalibe yéen ko bokk. dëgg la sant sëñ Tuubaa rek. dëgg la waaw sant sëñ Tuubaa rek. dëgg la waaw lii lépp lépp tawfeex la. dëgg la tawfeex am moo ñu moo ñu gindi. moo ñu wommat. dëgg la nii rek la demee. alhamdulilah tawfeex sëñ bi dong la. alhamdulilah moo ñu gindi moo ñu wommat. alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah jërëjëf yéen ñëpp ñëpp. yi ñu ngi seqal liggéey bi. waaw ak mboolem taalibe yi. waaw dañ kaa ci xolam. ñëpp ñu ngi leen di sant. di leen di leen kañ. waaye di leen soññu nag. dëgg la waaw nañ gën a soññu. dëgg la sant ak soññu rek. dëgg la diggante sant ak soññu rek. waxtu wu ne na ñuy sant Sëñ Tuubaa. waxtu wu ne it danañu soñ danañu soññu jëm ci liggéey Sëñ Tuubaa. yaar yi rek la incha allah waxtu wu ne. na sant sant Sëñ Tuubaa. dëgg la waxtu wu ne. na sant sant suñu bopp. jëm si liggéey Sëñ Tuubaa dégg nga sa amul ba nii dégg nga sa amul ba nii dégg nga teew ak ñu ngi ëllëg yi ba ba ba ba bis ba bis penc ba nag waaw nañ ko àndandoo rek waaw bu ñu yëpp dañu gën a gën a soññ seen bopp ginnaaw bu ñu sante seen a yàlla rek tax gën a sant seen bopp ñu gën a soññ seen bopp jëm ci liggéey seen Tuubaa dañ sax ci loolu façale yi mbooleem sëñ Tuubaa kon taal bi sëñ Tuubaa kon ñooñu sëñ Tuubaa ñi ñëw ñëwagul. ba ah, ba bis biñ ko. dëgg la jërëjëf. jërëjëf. dégg kon nag loolu daanaka ci gàttal moom monsieur Cheikh bëggoon na pour ñu gën yeesa man nag danaa ci teg dara loo xam ne moom bëgg na mu doog a mu jëm ci moom te Cheikh bi ci turu boole ba aju ci seen dëkk yu ndaw yi ñu laaj teel na ko kat yi lu tax damaa xam ne bi nga wootee sa woote lii ñëpp ñëw ñu si la donc bu fekkee ne moom ci boppam jëriñ produit yi day a ko waa daal ñu ñu gis kon nag ci turu daal ñu gën yëpp dañ koy di la ko seet ndax lii mu def kat yaakaar naa ne ko defutoon itam dana xaw a koy waaye comme lu mag bi teel lu mu lay ci ci liggéey daal la nekkul ci woon par exemple dana mel ne da ngaa woote na nekk doon général bi doon dem ci jeex. woote loo ànd ànd nit ñi li bari bari bari bari boo gëstoo gisoo sa waa kër itam da nga xam ne sa waa kër ànd léegi waaye loolu dafa dafa nekk looloo tax ñëw Cheikh bi liggéey bi lu am solo lool ci ñun waaw ci ñun ñi nga xam ne ñu naan jigéen ñoom ñu jàll ñun lépp loo tax lii ma lay wax ci turu boo leen dox seen bëccëg ak i ceeb moom laa koy wax ñoo koy sant ndax ñun ñëpp la waaw kon nag loolu daa ko mën a seet moom waaye moom ñu doon keesal rek moom ak daan bi danañ yëngu lu bëgg daan bi loolu seen leneen lu mat bëri fii waaye nga xam ne Sëñ Tuubaa lu Tuubaa jiitu yàlla àggale ko ci lu wér loolu ko ci yow nga xam ne boo def dara ci Sëñ Tuubaa boo def seet bu ñëw bu ñëw da koy def boo defee Sëñ Tuubaa moom ñu ko looloo tax lépp lii yaa ngi leen moom koy def du jàppoon ne lenn du denc wala lenn am ci yow boo waaye daa xam ne lëggee Sëñ Tuubaa boo ca nekkee lépp yow waaw dana xam ne da ko kon nag looloo tax ñu gën a jaay dem yoon waaye li taxoon bi ma leen doon yem moom mooy seet suñu jant ci moom ndax wax dëgg yàlla li mu def ñun ñëpp daal ñun ñëpp la ko def kon nag loolu rek laa bëggoon a seet ci yow waaye gën a leen ñëpp leen ko gis macha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf almaaruufi inda almalai alaa bil abdil xadim kaana lahu bi karami albaaqil xadim wallaahu alaa maa naqulu wakiil baa'a allaahu tabaaraka wa taalaa an kaatibi haadihi alxuruufi samaaniyatan wa ishriina maali ba sa su ba mi ma ku ju ha da da da da qu qa sa ni ja dha ha xa xu ri li ra ma mu na washtaraha minhu bi thamaniyatin wa ishrina abajada hawaza hataya kalamana saafada qarasata fa khadha dhagasha safaru hamtashin safarun bihi safaa xayaati man hadaani xaarifa bihi wasirtu min fuyuudin xaarifa